dégg jëw bi gaay ne dangaa daanu bëgg lu yomb tax nga jël Abdou Diouf. waaw loolu xam nga loolu ñu xamul nag moo tax analise moom ñi xam dëggantaan Gris 2 xam nañ ne moom mosul laaj Abdou juuf yàgg na maa laaj ci làmb yàgg na def ay vidéo ne na ñëw naa ñëw mu may ma sens te mosuma ko sax boole si samay affaire dara mais mosuma ko woon boole parce que nit ñi tamit dangay xam li nit ñi di wax après. Mm-hmm. te ñun loolu mosuñu ko souhaité Reug Reug mii loolu taxoon ma jël ko Ablaye Ndiaye loolu taxoon ma jël ko li ñëpp naan dëgër na mooy combat man yooyu moo ma gën a neex te bii Elton la woon promoteur bi ñu doon wax Elton la doon wax wax naa ak Elton jubóowul ak moom te boobu bi mi ngi doon dem. kon Elton bi dawoo ko. non Elton bi man maa jiitu bëgg bi sax <laughs> yàgg daa ko wax. Elton man ak moom moo doon combat bi mais Abdou Diouf muy man muy Elton yëpp li Abdou Diouf def ci làmb ñun defuñu ko. ñi mu daan ñun daanuñu leen moo tax nag combat boobu tamit combat la waaw muy combat boo xamante ne bu am importance boo xamante ne day nit ñi du ma nangu sax li nit ñi di wax mhm. waaw naan comme yow yaay favori wala dara noonu di mhm. daal bu deful bu dee dafa def loo deful mhm. man de man moom mooy sama favori li may wut daal mooy ñëw bëreek moom pour daan ko te incha loolu laay ñaan yàlla te yàlla gëm naa ne dina ma ko defal. gars yi ne Gris 2 quatrième tigre de Fass. Hmm. loolu la gars yi wax ne moom ñu bari ci moom lañu am yaakaar ñu gis ne affaire tigre yi ñu ci doon waxtaan gis nañ ni parfois day poser problème. Hmm. est-ce que tey Gris 2 mi xalaat loolu. non poser problème ci fan ci biti wala ci suñ ñun suñu biir. waaw ñun moom sunu biir moom amul fa problème. loolu nit ñi ñooy wax yéen da am naan journaliste yi yéen a bëgg a ñëw. bu Balla Gaye boo leen ko waxee le lion de Guédiawaye hmm? wutal keneen beneen affaire ci Guédiawaye wutal keneen beneen affaire bu dee ñun Fass la nag bu kenn nekkee tigre ngeen di jéem a rek la yeneen tigre si suuf yéen yéen bëgg loolu yéen yéen ñuy def loolu tey mën nañu wax ne Balla Gaye mooy nangam nangam Ama Baldé mooy nangam nangam xam nga ci Pikine ngeen bàyyi ko Eumeu Sène mooy dof du wér dooleen rek la beneen dof foofu mais bu dee ñun la nag. boo leen nee Tigre de Fass mooy Gris Bordeaux suba ñu ne hey est-ce que Gris mi warul dem Gris mii kii mi ngi ñëw de kii dina ko dab de xam nga i Gris mi kii nii moo war a nekk de xam nga kële moo war a nekk bëggu jaxasee mais ñun. tooguñu ci yooyu ñun dañu ñëw ci làmb pour am man déjà man dama teel a jël sama yëf. dama doole dem jël sama yëf man je éléphant <laughs> yaru si tey duma tooñ. <laughs> du fàdd kenn waaw beneen tigre bi nag moom Gris c'est le tigre de Fass bu demee nag après yéen comme que yéen dañeen ñuy wëral ay tigre ngeen wër ko foofu mais man du ma tigre man éléphant la non non la non amul diis amul ah, dara man nuruwuma tigre benn tigre day garaaw comme ni Gris di def di tëb wala ni force wala ni force di def ni mu soxoree wala Serigne Ndiaye de ni mu soxoree wala lagrosse xam day dóor di màtt tigir façon boobu lay mel taman melu ma noonu yëpp. mais mais Gris de man damaa xaw yéex yambar def naa ko affaire man daw da ngay man éléphant daal laa mën a nekk affaire tigre pourquoi ngay daw tigre bi dafa diis ci parce que tamit. daw ma ko dama koo mënul nekk. ok xam nga loo mënul nekk bokkul ak looy daw looy daw mooy loo xamante ne yaa ko moom ba pare nga ne bëgguma mais yéen seen bopp yéenuñu sonal ak Tigre mais ñun boo demee ba biir Fass ba ca écrit ba foofu amul problème mu Tigre. ok mais yow nga ne bëggoo ko nekk. kookal la. yow man éléphant la la. mais ndax bëggoo nekk Tigre. parce que mënuma ko nekk. waruma ko nekk parce que man du ma Tigre. <laughs> Tigre day soxal Tigre day agressif man agressif bu ma. Tigre bi daa diis. waaye dama ne tigir bi musul diis. ah non si parce que yow instant bi yaa ngi naan laa que éléphant laa moo tax. mais gars yëpp nañu waxante dëgg. instant bi hmm. ah, léegi la moo tax yéen Fass mënoo leen jàpp mbër yëpp. Hmm. ngeen ne kii tigir la. kële lion la. kii nangam kon ni ngeen koy defee yeneen kii yi. xam nga le lion de waaye ba ngeen ko tuddee Balla Gaye ba léegi. beneen lion de Guédiawaye lijjanti woo leen ko. mais la moo tax léegi Fass bu ñu nee diw mooy tigir ngeen lijjanti ngeen bëgg ñu. forcé lijjanti ñu yeneen tigre ci suñu biir. mais yéen da ngeen am premier ba fi premier tigre non non ba fi premier tigre nekkee. Ah. kenn déggul waxu deuxième tigre. dafa dem ba bàyyi. deuxième tigre jëw. deuxième tigre ba mu fi nekkee. kenn waxu fi waxu troisième tigre. dafa dem ba bàyyi. ñu ne troisième tigre. mais léegi la moo tax troisième tigre bi moom nekk fi ñu bëgg fi lijjanti yeneen tigre. non troisième tigre xam nga sax est ce que sax du yéen ñuy catu. parce que boo leen seetee koo leen ne mooy quatrième tigre ndogal ñëw ci moom. moo tax da ngeen da war a bàyyi de barke alxuraan ndax loolu do taxaw seetlu la sax loolu dañ ko war a xoolaat. Ah. parce que yéen seetlu nañ koo leen ne quatrième tigre mu yàqu te yeneen tigre yëpp. yëpp kenn mosu leen wax tigre ba keroog ñu koy doon. mais ba ngeen commencé tudd nit man seetlu naa ay yu bëri ci phase yoo leen tuddee ay tigre. Ah. affaire yi dafa mujjee cat dafa mujjee ñëw. kon ñun journaliste yi ñoo ne cat. da ñoo war a bàyyi de barke Rasulullah da ngeen ñoo war a bàyyi ak ay waxu tigre. non yow moom tigre ñeme woo ko comme ne nga éléphant nga moom. parce que damaa gis ñeneen ñu doon wax tigre cat ñëw. moo tax nag ngeen war ñu dimbale ay tigre ñun ngeen bàyyi ñu. Gris doo c'est le troisième de Tigre de Fass mm. bu yàlla bu demee moom xalaatu ko woon ba muy commencé xalaatu ko woon ba yàlla ñëw kon ëllëg ki ñuy tuddee dixième Tigre wala dara tamit kooku mën nga mën nañ ko mën na fëlee fu ne parce yàlla mooy dogal rek mm-hmm. waaw ñun daal lenn moo ñu intéressé mooy représenter Fass dignement mooy képp ku ñu gis xam ne kii kat du mbër bu ñàkk fayda du mbër mu ñuy fowee ci làmb du mbër bu ñàkk xorom boo xamante ne day def yëfu dof wala dara ba ëllëg sunu génération ci Fass kon niñ naan diw ak diw diw jamono njii Fass jamono sunu génération ñu koy tudd ñu boole ñu si nit ñii kat am indiloon nañu Fass ay ndam yàlla dogal na yàgg nañu bégal képp kuy supporter Fass liñ la bégal moo ëpp fuuf bis bi ñu la jooyloo léegi nag liñ bëgg nag mooy maintenir loolu fexe ba supporteru Fass yi toujours ñun ñu leen di kontaan loo mais moom ay détails yu Tigre moom seen détail la yéen mais da ngeen ñu ko bëgg puus dangeen di dem sax ba jàpp ba bëgg def ci xelu nit ñi Fass dañuy xëccoo Tigre mais ni Tigre dafa am prime wala puis Tigre dafa am salaire wala Tigre dafa am dara mais yéen ñu koy forcer di ñu tooñ ak di ñu ak di ñu xulusu da ngeen mel da ngeen bëgg xulusu mbëru Fass yi pour ñu bañ a yéeg loolu nag bàyyi leen ko bu leen ñu xulusu bu leen ñu catoo bàyyi leen gars rek waaw yàlla doxalee ko kon ni mu ko daan doxalee bu njëkk ba. pour yéen ñuy suivre sur Wassare Lamb Wassare TV ñu dalee ki nga xam te moom mooy Gris 2 nee na leen instant bi nee na ñoo leen di kii ci affaire tigre yow duma la sax faale. Ah, da ngeen xulus euh, bu njëkk ba ak bii dafa am différence. Mhm. mu yéen booy yi parfois dañuy dégg sax ñu ne yéen entraînement respecté too leen ko. Mhm. ñi dañuy ñëw gauche ñi ñëw droite. Mhm. yow d'après yow ban différence la am. en tout woon ak bii. waaw différence bi mooy làmb ci boppam moo changé waaw Fass gënoon bu njëkk ña ñoo gënoon nekk ay groupe que ndax Fass nag bu njëkk ba daan woon toog mukk sàmbaru Fass am combat daan woon am lu mu néew néew néew chaque instant chaque instant cinq dina fa am combat chaque instant noonu la daan demee. presque sax chaque dimanche mbëru Fass bëre te yooyu en général mooy dundal écrit mais écrit Fass dañuy toog année bi yëpp du ñu am du ñu am <laughs> ay combat néew la ñuy am te loolu day tax tasaaroo bi gën a am mais en tout cas li nekk Fass li may wax toujours li nekk Fass moo nekk fépp waaw écrit yu bëri da ngay gis mbër yi fu ne la ñuy entraîner nu ne la ñuy doxalee mais bu dee Fass moom bu Fass la ñuy tudd mais làmb ci boppam léegi ñoom ñoo koy doxalee noonu pour nga gis fii nii benn groupe bu dynamique écrit ak énergie nga gis Modou Lo am combat di dem ci écrit ba chaque jours wala nga gis ko ci Balla Gaye wala nga gis ko ci Eumeu Sène non loolu moom gisatoo ko fen mais bu waa Fass rek la ñuy tudd mais teewul tamit ren ji loolu moo doon engagement bi waaw toogoon nañu waxtaan ay wax kilifa yi teg benn feuille de route boo xamante ne ci lañu fa fas yéene woon tënku. ba loolu yëpp daan am parce que loolu moom wax dëgg yàlla moo ëpp avantage ñun bëri sax moo ñu arrangé. gise boobu noonu ñun ñëpp contact ku écrit ba foofu wax dëgg yàlla li mu mën li mu mën moom leneen mënu ko waaw foo mënti entraîné ci àdduna bu écrit bi daal moom moo gën. waaw parce que bu écrit bi chaque jour saa yoo ñëwee da nga fay jëlee xam-xam da fay jëlee confiance da ngay xam ne yow mii mbër nga waaw parce que da nga fay gis ay kilifa yu lay yokk toujours. waaw mais des fois nag kilifa yi sax duñu am jot waaw parce que bu combat amul dara amul affaire bi day géey day wét loolu rek mën naa ko jàppee. Mm-hmm. kon mbëri nga xam te ne dañuy nekk ci comme tête de file yi yéen ñi nekk da ngeen am komba mais dañuy gis nii yéen da dem beru ji loolu noonu du am lu mu yàq. bien sûr environnement làmb boobu noonu système bu bees boobu loolu yàq day yàq lu bari yow miy préparé rek dalay yàqal lu bari yow mi nga xamante ne yaa moom sa di waaj. rek yow da lay yàqal lu bari waaw parce que parce que mbooloo mële moom li fay génn mënoo dugg ci benn ruq ba mu am fa. Mm-hmm. benn mooy gis nañu seen règlement intérieur waa fas gis nañu changement yi loolu nan nga ko gisee yéen am na ci point boo d'accord. non non man man affaire yi xooluma ko sax lettre bi jox nañ ma ko de mais man xooluma ko. waaw rek laa bind si kaw enveloppe bi. ndax la parce que lu ñu mënti teg loolu man dama ciy d'accord parce que mënuñu faa dugal man lu ma mënul. mënu ma mënuñu faa teg benn règlement boo xamante ne attanu ko. man moom xooluma sax article yi. dama ñëw rek d'accord. mais boo amul lu ma ci arrangé wul. parce que li fa nekk mën nañ ko ñun ay élèves lañu. te xam nga kan la mënul arrangé ma ñoom giri ñi nga xamante ne yor famille di ay kilifa wala ay yenn grand yi quoi. mais ñun. dañu toll ci jàng moo tax foofu amul luñ fay souligner naan ay lii arrangé wu ñu wala déet mm-hmm. waaw ñun li ñu war a def rek mooy nekk ay ginaar yu ñu gàdd ñu mm-hmm. ñuy diri di ñu sant ñuy def. Mm-hmm. waaw d' làmb doxul. làmb doxul. làmb yi manqué na lépp manqué na parce que ni ñuy ni ñu taxawee baaxul. waaw nu ñu taxawee baaxul en plus gittangaas bu bëri na ci abandonné bi xam nga sponsor yi daw promoteur yi di débrouiller di sonn bëgg làmb di daj ay coono xam nga loolu yëpp état accompagné wu ñu loolu yëpp bokk na ci li nga xamante ne mooy sooxantal làmb làmb amul la rek bu sénégal yi def seen xol bëgg ko di ko suivre te bu dul woon loolu dee na bu yàgg parce que moyen bi dematul noonu. promoteurs yi dañuy débrouiller affaire yooyu loolu loolu loolu rek moo ci nekk. Mm-hmm. mais loo xamante ne tey bu doon dañu gëm suñu bopp dëggantaan ñun africain rawatina sénégalais ñu def ko suñu produit xool nuñ koy defee xool niñ koy taxawee ndax bu feeñoon ci beneen dëkk ñooñu <laughs> gouvernement bi dina ci wut ay pexe de. Mm-hmm. waaw mais làmb dafa dem sax ba nekk genre complexe si ñun dafa nekk benn genre complexe si sénégalais. du ma seetaan làmb sax succès succès la quoi niveau niveau intellectuel la boo ko waxee sax pour yow succès la te gis ko ne moo man du ma seetaan làmb affaire yooyu te da seetaan box bu la neexee sax seetaan sumo bu la neexee seetaan yeneen sport yoo xamante ne ñeneen na ko defar mais yow sa bos da nga ko xeeb moo tax esclavage tubaab yi nootu ñu ñun jëmm jëmmu nit mais suñu xel yi la ñu noot waaw lépp. booy jaay yére sax dama naan lii dëkk nangam la jóge dëkk nangam ñoo ko defar loolooy tax affaire bi jar boo nee fii la jóge rek baaxatul noonu la Sénégalais di doxee moo tax làmb mais làmb ñi ko xam dëggantaan ak kilifa yi fi nekkoon di ay intellectuel de haut niveau bu njëkk ba te tey nit mënu leen jaay ba romb leen ay per Lamine Diack ay ñoom euh, grand sëriñ de Dakar laaj Bassirou Diagne ay Ablaye Matar Diop yi ay kilifa lañu. xam lépp dem fépp ci àdduna mais dañu bëggoon làmb parce que xam nañ ne sunu culture lañu mais intellectuel yu bees yi nii intellectuel yu bees yi <laughs> ñoom ñoom pour ñoom làmb yëfu yëfu salte la parce que Sénégal Sénégal la juddoo moo tax buñ ko jëlee woon feneen dinañ ci gindi wala ay wala ay philosophe wax ci mhm. nga gis ko ñu arabal ko ñu yëgal ko taawi ko mhm. mais comme que sport de chez la rek xeeb nañ ko mhm. waaw moo tax esclavage mayen la rek jalousie bi dafa bëri ci làmb mbër bu yëngoo lu mu def rek ñu ne waalaa tàmm nañ lii dal bu dal làmb rek ñu ne waalaa dof yaa ngoog ñu ngi nii ñii dañ leen fi war a jëlee da ngay dégg moo yooyu lu bari mais loolu dangay xam ne ñi koy wax c'est des complexes rek complexe rek moo leen jàpp waaye tey étudiant <laughs> da ngay dem ambassade ñu rejeté la ñii dangay jaar ci gaal gi pour dem Europe wala dara mbër bu ndaw boo demee États-Unis ambassade dix ans lañ lay tàppeel boo demee France ay quatre ans lañ lay may visa ay deux ans lañ lay may parce que ñoom xam nañ ñun ñooy ñan donte suñu réew ñoom dañ ñoo xeeb. Mm-hmm. ñoom yi leen të ñun loolu tubaabee ñoom tubaab yi nga xamante ne ñoom lañ jox bopp. Mm-hmm. ñun ñoom jox nañ ñu bopp ambassade boo dugg loo ba bëgg mbër mi. Mm-hmm. loo demandé moom lañ lay may vite fait. te mën nga ñëw jaay tubaab defar say kayit jàng ba ne ar dem ñu ne la rejet bër ba bu demee ñu kii ko kon ñu dëkk suñu réew jàpp ne ay intellectuel lañ ba jox ñu cër làmb jàpp ne benn mouvement wu dof la jàpp ne ay nit yu dof lañ parce que sport bi suñu réew la ñu koy def ci réew mi lañ dëkk gisuñu si xonq nopp benn philosophe waxu ci benn kii bindu ci livre ñu jàpp ne kon yëfu dof la mais ñoom nag ñi ñu jox bopp tubaab yi nga xamante ne jàpp nañ ne ku fa jàngee rek yaa aay ñun nag ñooñu jox nañ ñu bopp luñ fa bëgg dañ fay am buñ fa demee six yu rëy lañ fay am. tubaab yi ñuy jaxas jaxasool foofu ci Europe beeg ci lépp dañ ñuy naw dañ ñuy bëgg te xamuñu ñu xamuñu sport bi fu mu jóge moo tax rek ku ku yor dara te xamoo ko keneen ku sori dina toll faneen ëpp la importance fuuf. moom mu bëgg ko. ngir de waaw loolu moom pare naa ko. Mhm. waaw parce que sportif moom sportif la rek waaw. MMA ak yeneen parce que dañ naan MMA MMA mais sport de combat du jeex. Mhm. waaw sport yu mel noonu ëpp na sax vingt. yoo xamante ñu bëri xamuñu ko ndax dëkk bu nekk am nga comme li làmb am nii. Mhm. sport boo xamante ne sa sport la ay sport yu bari moo am. te yooyu yëpp incha allahu rabbi bëgg nañ ko bëgg nañ koo def. yow ban sport nga loolu garissima la woon loolu Japon la woon. Mm-hmm. mais am na yeneen ak yeneen France am na yeneen yu bokkul ak MMA. am na si yoo xamante ne boo nekkee au sol amatul dóor ay prise la taxaw bi rek moo am dóor affaire yooyu am na ay yu bëri yoo xamante ne ay différent sports la. Mm-hmm. te incha allah incha allah bëgg nañ koo def. seeti nañ ko. Mhm. ñu laaj ko mu ne am na xale boo xamante ni. Mhm. ba ma ci tolloo dama koy gis ñu ne kat mu ne Gris waaw père père la moom loolu moom succès la moom. loolu moom dafa neex parce que parce que père moom bu nekkee mbër moo xamante ne bañ nekkee xale ba léegi ñu ngi koy dégg ci fullaam ak faydaam nit mosu koo yàpp. nga ñëw ci làmb ñu ne ñu ne la kooku rek nga ñuy jox loolu yow da ngay kontaan loolu la wax dëgg yàlla satisfaction bu mag a mag a mag laa ci am mm-hmm. waaw la Rose moom tooñ la ko jàppee te saa yi ma ko waxee ma <laughs> tooñ la ko jàppee ma ne ko wallaay laasim loolu de mm-hmm. succès bi ma ko jëlee mm-hmm. waaw loolu moom ba ma ko déggee dafa rëy trop waaw parce que ay kilifa di gis yow ñoo xamante ne jaraloo leen jaraloo leen dara affaire yooyu di la apprécier di gëm ne li nga nekk baax na loolu loolu loolu contentement bu rëy rëy rëy mm-hmm. vraiment moom ñu ngi koy ñaanal nag jàmmam yàgg suturaam yàgg. Mm-hmm. waaw yàlla bàyyi fi ba ci kanam kanam kanam. Mm-hmm. ba fi mu jot yegg roi bi mu dégg. ñu dégg ko pour affaire yi gën a complet boo ko jegee mën na laa waaw jege jege ko kay te dañ ko laaj parce ñun si écrit lañ nekk. wax dëgg yàlla mosuñu ko njar ak dara écrit bi. musuñu koo njarak dara musuñu ko booleek dara waaw ñun nag dinañ ko laaj dinañ ko laaj dinañ ko laaj bis yi ñu jëm yëpp dinañ ko ci dinañ ko ci laaj incha allah. Gris 2 beneen bi mooy que ni gis nañ yaa ngi ko doon wax sànq làmb ñu ne dafa am problème gars yi nag mbëri mag yi problème bi si ñoom la nekkee parce que ñoom ñooy demandé cachet boo xam ni promoteur yi mënatul ngeen koo fay. Mm-hmm. ñoom ñu ne yéen mbëri yéen ko yàq. ñii ne promoteurs yi ñii ne ñi nga xamante ne ñi séq làmb gis nañ ni waa CNG ak euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy arbitre sax doxatuñu problème ba am na ci làmb yaa ngi koy wax sànq loolu mën ngi si ñëwaat. waaw problème bi dafa bëri ci làmb loolu yëpp moo tax ma ne la làmb dañ ko war a organiser waat tëgg ko de A à Z ndax làmb am na tey duñ ko doon organiser même làmb bu amee problème mbër yi dañuy bëre mbër yu mag yi ak ñu ndaw ñi. ndax tey Gris Bordeaux Balla gay ñoom ñaar mën nañ tëgg seen komba bu ñu amoon ay structure wala ménagère yu jaar yoon. Mm-hmm. ñoom ñaar mën nañ organiser seen combat bëri ko. ñoom ñaar waaw mu nekk même bu dee cachet bi sax ñu teg ko ci ay sponsor wutal ko seen bopp ku si nekk dem wuti say démarche say sponsor bopp jox ko benn comité ñu tëgg ko ñu bëree ko. mais yooyu yëpp tey da doon laaj organisation te làmb foofu lañ bëgg pour mu dem. xam nga làmb foog ménagement bi ñu defar ko xam nga foog ñu ménagement bi ñu defar ko defar lu bëri ci biir làmb pour bu ko defee ñun ñëpp ñun ñëpp dañ ciy bénéficier wu tey war nañu wut ay nit yoo xamante ne dañuy def formation war nañ ubbi loo xamante ne dañuy defal formation sax su lu ménagères yi pour ñu xam lan mooy ménagement am na ménagère tey du rek pour cent du rek da ngay dem rek. boo gisee promoteur bu ne damaa bëgg bëreeg mbër sa mbër bi bëreel ma rek nga ñëw wala nga dem di ko lijjantil non non dafa war a nekk yow ak mbër mi bi nga xamante ne da nga accompagner dafa war a nekk lu yàgg dafa war a nekk nga koy démarcher sax ay téléfilm yu mu war a jouer liggéey sax da nga ko war a wutali teewul yow sa pourcentage da nga ko ciy am xam nga lépp loo xamante ne da koo concerné loolu da nga cee war a taxaw. ci lépp ci lépp. te loolu nag foog ñu def formation boo xamante ne loolu dañuy ànd parce que sunu ay kilifa ñoo fi nag sunu ay papa yoo xamante ne tey du lu compliqué yow da nga ciy avantage wu de plus mais mbër tey bu bëriwul nag doo am dara te loolu sport dépassé na foofu. ménagères yi dañ leen war a defal formation xam nga comme ni ñu defaree formation entraîneurs yi ba ñu kii ko sunu ménagères yi ñu defal leen formation ba ñoom ñuy mën a dem ci société yi. di mën a sponsoriser ay nit di indi sax ay sponsor ci làmb xam nga bu ko defee mbër tout le temps ngay mën di kii téléfilm yaa ngi fii yenn mbër yi dem nekk ci di ci di ci feeñ yenn produit yi ñu taxaw di ko di ko di ko kii di ko di ko di ko publicité wala dara loolu yëpp ménagère mooy dem di ko di ko war koo démarcher ñun des fois da am ay occasion ay nit tubaab yi jóge fa la bëgg def ak yow benn interview ci ci kiiwu Sénégal da wax ak ñoom yow en personne encaissé si xaalis boo xamante ne sa image sax amoo fuñ koy yóbbu. xam nga lu ma la mhm. te tey jii loolu ménager bu ñu amoon formation loolu ñoom ñoo koy dox xaalis boobu dina gën a bëri contrat yi dina leer tey man amoon na benn vidéo bu ma defoon ba may bëreeg Auguste la woon benn tubaab bu fi ñëwoon affaire yooyu ñu dem Radisson bañ ne suba la combat bi ñu waxtaan fa. jouru làmb ji mu ñëw sama kër la commencé jël ma dem stade jël ma est-ce que fooy moon quatre cent euros xaw ma cinq cent euros te xam nga tey yooyu yëpp image boobu fàtte woon naa ko ba sama mag bi nekk Japon moo jéeg-jéeg ne ma man damaa gis benn video xam nga vidéo bi ay anglais la ñuy làkk yow lañ ci invité ma ne ko envoyé ma lien bi mu envoyé ma dugg ci ndekete lool la <laughs> te loolu fàtte woon naa ko ndaxte seeneen ci boppam la daw. ok xam nga loolu tey boo amoon ménagère bu baax. wala dara mu toppatoo ko wala dara lool noonu da nga ciy continuer. Mhm. say droit da nga ko ciy laaj sax. Mhm. xam nga yooyu yëpp nag dafa nekk suñu problème amuñu image suñu image protégé wuñ ko defuñu ko dara da ngay xëy suba am na sax ay jouet lutte yoo xamante ne Prestor la nekk mbër yi lañ ci def mbër yi lañ ci def ay lutte dañ la koy signaler ay ñu nekk Europe. loo xamante ne tey jii mbër yi bu ñu amoon management yu baax yooyu yëpp seen day ñëw ci ñoom waaw parce que joueurs yeeg ñëpp dañ koo am rek moo tax mais loolu foog ñu defal suñu ménagères yi fi nekk ay formation mu doon waxtaan yoo xamante ne ñoom ñu si bëri dañ ciy jëlee xam-xam ba pare ñoom dañ ciy jëriñu du ñu yem rek léegi ci dix pour cent wu mbër boo xamante ne chaque année benn yoon lay bëre mm. mais tout le temps dañuy gis sa mbër day am ci yeneen yeneen liggéey yu muy am yow it teewul nga ci am xam nga yooyu yëpp day gën a neex moo tax làmb daal dañ ko war a tasaare. Mhm. tëggaat ko de A à Z. Mhm. waaw bu ko defee affaire yi jëm kanam quoi. problème CNG ko gisee gars yi ne CNG instant bi da gisee. waaw loolu noonu loolu noonu moo jaatu loolu waa CNG sax mereetuñ ci mbër yi xam nañ loolu c'est normal 26 ans. vingt six ans loolu Afrique rek la am Afrique rek la am waaw loolu amul fen comité boo xamante ne c'est état c'est publique xam nga loolu sax yow da ngay dem ba plafonné parce que xam-xam day jeex Sénégal bu fi Senghor nekkoon ba léegi ay poème dong la ñuy xam ay poème ay affaires yooyu mais Senghor dafa ñëw poèmel ñu yar ñu teg ñu ay terme xam nga kii génnee cosaan Abdou juuf ñëw xam nga jox maire yi ceeb ak diwlin ñi gars yi lekk ñëpp di lekk mm-hmm. amuñu tali amuñu dara mais dañ doon lekk mm-hmm. di lekk rek xam nga Abdoulaye Wade ñëw xolli tali bi jaxaay ak kereel ñu ay APH ak yooyu noonu mm-hmm. xam nga ay aéroport bu bees bu fi Senghor nekkoon ba léegi l'opposé à Senghor moo fi nekk bu fi Abdou Diouf nekkoon ba léegi benn aéroport la ñuy am Abdoulaye Wade moo tax ñu am beneen aéroport Macky Sall moo tax ñuy gis ay waxu terrain xam nga di gis ay jam ñaajo arène nationale xam nga ay yeneen ak yeneen parce que loolu lan moo ko waral changement mm-hmm. tey li président Alioune Sarr def nii baax na mais bu keneen ñëwee dina jéem a créer leneen loolu mooy tax mbir mi di avancer vingt six ans yi bu doon Alioune dafa def dix ans demoon joxoon keneen kooku am na leneen lu mu yokk parce que Alioune ay bon la fi fekk mbër di bëre ñu bindal la benn kayit rek ne la après dinaa la jox lii bu ma jaayee bi bu dindi na fi loolu mais bu demee keneen ñëw indi leneen bu demee keneen ñëw man instant waxatuma waxu CNG dem mais même kii ñëw na xam ne six ans la fi war a def man instant man loolu mooy sama combat mooy kenn bañati fi yàgg. ok gars yi ñu kii daal ñuy ñamal gars yi. waaw waxatuma léegi man ay waxu ne CNG dem mais keneen kii ñëw na xam ne dootu fi yàgg bu mu jàpp ne moom it dafa war a ñëw pour dóor vingt six ans am de. te am nga yaakaar Alioune Sarr non mais Alioune Sarr mais budul dara sax moom bëgg na sax bàyyi ndaxte déggoon naa ko fi sax mooy démission ak affaire yooyu man xam naa ne mandat bi bu jeexee dina bàyyi mais kii ñëw na xam ne du fi def dix ans sax du ko fi mën a def waaw na def benn six ans ñaari mandat de trois ans dem am lu mu gaawantu yokk keneen ñëw def fi ñaari mandat am lu mu gaawantu yokk parce que loolu mooy intérêt bi. mbër yor CNG ak kaneen yor CNG c'est la même chose CNG sportif yor ko am na ci importance waaw sportif moom sportif la rek waaw ndax li tax ma ne la ku ko mënti yor it garaawul ndax ku yor ku ko yor te amoo compétence bi bu sa mandat jeexee ñu changé la looloo tax changement baax waaw ndax képp ku ñu essayé ne kii xalaat nañ ne mën na ko yor mu ñëw ñu gis ne kii kat amul compétence bi bu sa mandat jeexee nga may ñu keneen ñëw looloo tax parce que kenn xamul ku baax mais bu ñuy changé di changé di changé rek lu bëri dina feeñ làmb kon dina passé fii waaw vingt six ans yi CNG def bu amoon plus de cinq présidents yu fi jaar kon làmb tey passé na fii mhm. Mhm. waaw j'espère que ni nag ah, kontaan ngeen bu baax a baax parce que tey nag wax dëgg yàlla imam moom dañ koo seet si ci ay mbir mhm. mbir mi mooy que ni ci làmb waxtaan nañ ci làmb waxtaan nañ ci nga xam te moom mooy société waxtaan nañ ci li nga xam te ne instant bi moom mooy actualité ndax nee naa leen wax dëgg yàlla am na koo xam te ne soo ko amee dañ ciy profité te tey nag wax dëgg yàlla dañ ci profité parce que kii dafa naqaree am macha allah muy gridé mu nekk da koo xam te ni wax dëgg yàlla suñu nit la mu nekk koo xam te ni man moom àdduna ñëpp xam nañ sama nit la suma xarit la suma frère la suma lépp la ndax lépp lu ma bëgg ci moom day yomb. loolu ja waaw yow suñu jigéen nga suñu xarit nga. waaw di la ñaanal rek li ngay def nii yàlla. dogal ñëpp dégg la ci. waaw parce que yi moom da koy teg ci yoon. di ñaan yàlla xam nga lépp fépp foo bëgg a yegg si sa liggéey rek yàlla yeggale la fa. waaw di jéggalu Sénégalais yëpp nag di baalu ñëpp àq. waaw lépp luñ jóom rek jàpp na ñun moom ay xale lañu rek yu dëkk ci réew mi bokk ci réew mi bëgg suñu réew tamit am jàmm. waaw di jéggalu Sénégalais yëpp nag di baalu àq ñëpp di ñaan yàlla sunu réew mi yàlla na ci yàlla def jàmm. suñu waajur yi yàlla guddal seen fan may leen wér di nuyu Patrice Hébert auteur Alcanciel ak jabaram Céline Diouf nga xamante ne ñoom it wax dëgg yàlla toujours rek ñu ngi sama ginnaaw waa taxaw nañ ma bu baax a baax a baax di su may xarit ak samay am di jàmm ñëpp di ñaanal yàlla daal Sénégal am jàmm mm-hmm. Mm-hmm. di jéggalu nag lépp lu ñu ci juum rek ñu ngi jégalu bu baax a baax a baax. Mm-hmm. am na solo ñu koy remercier waat bu baax a baax moom Gris 2 di ko ñaanal jàmm moo xam ni mu bëgg yàlla na ko yàlla defal ci barki Seydina Mohamed yàlla aar ko sàmm ko ci barki Mame kër si di ñu bokk ci barki turandoom wax dëgg yàlla nee naa leen moom moom suñu nit la daal suñu nit la suñu xarit la suñu lépp la parce que da siy jàpp nag bu baax a baax a baax mais bu dul lii da siy jàpp defeel nii waxeel nii nangam yombal ñu lépp lépp moo tax nag tey dañoo am contentement bu baax a baax pour jàkkaarloo ak ñuy seetaan sax xam ngeen ni euh, kii moom mooy loolu sama nit la mm. euh, di ko bégawaat nag bu baax a baax l'infatigable séeréer bu naagis muy Basiru Diouf nee naa la yow yàlla na sa jaam yàgg su ma ne laa acca rek nga ne acca tey nag man ñu ñëw fii ci Lac Rose ñoo seet si ndaanaan bi ah di béggee nag ah, tey nag waa diaspora bi laa may émission bi ku ci mel ni ñoom seex Sall ay ñoom Ablaye Thiaw ñoom ñëpp ndax gis naa ni ngeen ci jàppee bu baax a baax yéen ñi nga xam te ni yéen ñooy suivre Wassare Lamb yéen yéen a ma ko laajoon ma indil leen ko xam nga xam ne tey kii du question mbër mbër bi kese mooy wax mais am na leen lu nekk ci ginnaawam di béggewaat ñëpp di ziar ñëpp di baal ñëpp ak di baal ñëpp ak nan leen wasaare kese ah Basiru kese Fatima kese di jox gars yi dig daje ah beneen mbër beneen champion na ko ñëpp xaar jaajëf Basiru